diggante Canabasse ak seex baari day saan Cheikh baari moo nu woon gannaaw ñu jàkkaarloog Canabasse keroog ca face à face ba keroog Cheikh Bary da koo ne tey doo fi rab mën nga face à face boo dem rek di rab Canabasse bu bëggee wax seex baari du ko may fu mu waxee attention Cheikh Bary Cheikh ñu woon gannaaw Canabasse la ñu jàkkaarlool Canabasse rappeur bi Cheikh baari Canabasse mime na Cheikh Bary reculé Cheikh Bary cokkaas na Cheikh Bary Canabasse attention foqante ñuy baaram bàyyi wante Canabasse laaw na mais dalul Cheikh Bary ñu won gannaaw mooy njool mi attention la ilaha illallah eh Canabasse a koy dóor Canabasse a ngi ko Canabasse ah, a ngi koy dóor attention dóor mu daanu Cheikh Bary a ngi fayu ñoom ñaar ñi ngi xeex benn benn xeexu mbedd ey eh, laa ilaaha illallah hey hey baari door na ko mu daanu Cheikh baari door na Kaana Baas mu daanu attention lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax Cheikh baari door na Kaana Baas mu daanu Cheikh Barre ngi noonu di dem mais Cheikh Barre xañam nga nag Cheikh Bara ñam nga